tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub yaa ah, ngi si bëgg baaba tijjil loolu c'est symbolique ça ñaa bu la di rëcc c'est symbolique kon nee na mësta wax lay xam nañu waale fu ne mais mësuta wax ku gis photo bii dina ko nee na waale ci boppam photo bi dina ko fàttali lu bëree bëri bëri nee na amul woon sax photo shooting pour def lii lii photo Bercy la bu Youssou Ndour en 2010 nee na ñuy ñaanal Thione Seck di ñaanal Momy di ñaanal Adja Kine Diouf moom yi defoon ci liggéey bu rafet rafet rafet nee na muy wax waal ah, yi ci turu waa Ramadane yépp mag ak ndaw ñoom ñëpp ànd nañu gërëm Waly Ballago nee na dana leen ñaari nit ci staff bi ndax mënta ñàkk muy Papis Ndiaye

maa ngi bëgg tourné ma jëlaale ko moom fees bi quoi bëgg a jëlaale benn genre mouvement léegi léegi loo bëgg léegi ah ñaareel na wala. Wally Seck jooy dara danga def ci maam booy guddal fan. guddal fan yàlla na nga wér yàlla na sa doom ju baax jaay seen kër mariage bi sa benn ak sa liggéey maam yàlla yàlla suñu borom defal la jàmm waaye dama kontaan gis moom sama di bañaan may ah bu ma limee ñoom tumaa ni jaaw gaa yi ñu la gaa yi na xulle ku ci am ak sa morom beneen problème yaakaar ni dañuy dugg wala da lay jàppale mooy nax na sa bopp kii. yooyu bul jooy jërëjëf gars yi saa yu demee ñu rek Cheikh Anta ñu gars yi non da ngay faal dañ si jàll taay taay bëggalu ma taay taay taay taay taay taay taay waaw dafa ndax non non dafa ndax lu muy bu ngeen maa jox micro bi dégg nga sax maa ngi may yow daf lay def gars yi kaay may kaay taxaw bi xoolal yow naa jox kaay say wax dëgg lu jeex. ni président day jàpp day jàpp mais mais madame ah, Ndiaye waaye bon mais daa bàyyi lan la daa bàyyi lan la tamit mais daa bàyyi lan ah, dafay day def ah dernière et quatrième édition soirée internationale Kaay ma jaay la fii ci Sénégal Dakar Ndiaye Dial Diop particulièrement fële ca CICES le 26 le le 25 26 27 juillet. benn ah day yegg ba benn waaw dafay nag neexul nga neexul. bant bi dafay yaay borom. yaa yaa ko ubbi yaa koy tëj. kon dama ban kurba yaa ngi noonu. donc c'est légendaire. mais daa bàyyi woote de vente privée. daa bàyyi woote vente privée. fan la si des. ah loolu nag xel nag moom rek ci réew mi. waaw waaw da bàyyi nu mu ko ñaanal rek te yàlla sax incha allah waaye wuute bi wuute naag ñëwoon ndax bii ni koy defee ci arène nationale bi ci esplanade bi dañ daan feneen ak feneen ak feneen moom muy doomu banlieue waaye nag loolu rek doyul dafa jël sécurité bu mucc ay boo xamante ni li ko dalee Canada la jeunes yi di taxawee ak policier ñooy collaborer liggéey ñeneen ñi taxaw ca buntu Pikine ca côté Seras ba ca fa nga xamante ni mooy EDK ba boolu xam comme base ba fa la policier yi di muy entrée bële ak entrée bi bu ci nekk police ak jeunes yi ñoo koy taxaw mu woote fa la 10 sargal Mbaye si Ndiaye man nii seeraam di pampam mu dof dof ci kan Wally Ballago Seck le chanteur du peuple Faramaré mu fu waay mën a nekk na nga ñëw mu def ci nag muy loo xamante ni kenn ku lu tax muy la hommage à Papa Thion ku ne xam ne ni Faramaré bi boobu ba tey bu ñu pour sargal Papa Thion Fallou Ndiaye désormais woote ci di ci sargal Papa Thion première partie Kéba Seck ak son groupe kuy reer reer ak yeneen yi way bees tàkk xalif général muy kat Assane a ñëw ñoom tamit def seen première partie ñoom tamit en live xanaa kon loolu rek doy na waaye mu ne loolu doyul Ousmane Seck dara fa nekk Mapenda Seck dara fa nekk Waly Seck mi nga xamante ni moom la ñu ak Mbaye si Ndiaye bi loolu moom surprise la boo xamante ni kenn dootu ko lam-lam sans compter artistes yi fa war a nekk artistes Sénégal yëpp incha allah dana ko def ci playback na ñëpp ñëw képp kuy artiste journée bi nag spécial liw di Rita Mbalé la tudd liw di Rita Mbalé ñu kuy instrument gis na ñëw fu waay mën a nekk di yëngatu na nga ñëw ak sa instrument parce que Fallou li mu def daan nañu gis fecckat bu woote daan nañu gis woykat bu woote waaye instrument gis rawatina clavis bu woote ni ko soog a gis ci fàllu ñax ñu bëgg nag ñëpp gàddu seen instrument ñëw taxaw surprise dana bari sargal dina bari hommage à Papa Thione waa Pikine du kenn des dinañ ko décorer ba kenn du ko xam ne bisu Mbodé moo fay ne soo ay lumière di wax ni ñëpp ñëw incha allah bu ko defee ñu def Pikine loo xamante ni mosu ko am sécurité bu wóor incha allah son et lumière jërë ngeen jëf bay am na solo macha allah bay Faramaren ñëpp nag. waaw waaw Faramaren ñëpp. na ñëpp ñëw. macha allah am rek. ah ma jës ma jëm ci boppam. voilà xale dina gën a gàmm ak fii ci réew mi fii. Maman, maman nak yaa mignon nii rek. yaa mignon nii rek. waaw waaw. waaw beneen la tur allé tur. waaw maa yaa mignon nii rek waaye. rek yi gën naa ko gis depuis mille neuf cent quatre-vingt. mille neuf cent quatre-vingt. ah. mille neuf cent quatre-vingt jàpp. mille neuf cent quatre-vingt laa dem gis rek yi. ñëwaat na kon ñëwaat na. non rek yi ñëwaat na ñëwaat na. léegi démb la démb la rek. jigéen ñu sëy yow wàññi la sama yaay ji waay. ah. jigéen ñu sëy yëpp. mooy noonu jàng si maa lax lu mel noonu jigéen ñuy sëy man de wax dëgg yàlla ah. danaa ko ñu ko ci jëf ko ci wala jàng ci man ci seen man na jaay man na maam bilaay man na soxla bilaay lépp lu tege si ndodam yi mu koy muñ lépp moom la bilaay ku mu tege woon sax ndodam su lay faal mais uus na ñëpp loolu moom xam naa si mën nga joxe lépp mën nga joxe lépp macha allah baax na yaram na tamel man de man de wax yaru na tamel amal man ba sama yaay jàppal ma dara booba booba ñëw ma ko ci ñëw ma ak Serigne Saliou billahi gaay moom ba may teral waaw ci li nga wax laa lay dëggal jàpp ngay la yow moom ba may teral boobu ñëw ma maari mu doon sama yaay ju baax ma bëgg ko nag mu def sama yaay sama yaay moom it patron patron baax nga mën nga joxe lekk mën nga may xaalis. lay su ñëwoon ci kër gi nga fas sa kanam ba am yow. donc day. fii borom wax ju bari ji di ma dëgg rek seen am bu diis. yow bu lañ dëgg. grand comme il y a une grande dame. dëgg la waxal waay. waxal si kaw. dama wax ci télé bi barki démb laay waxaat. waxal de. ba pare yàlla bu ma gisul waale gis la gis naa waaye. wallaahi ndeysaan waaw. bu ma bindee ñu ne ma waale dem. dëgg la. ma jàkkaarloog aawa buuru këram. ndeysaan waaw. lii rek lii nga def lii rek. lii rek. ça me voit quelque chose. ndeysaan. fàtte woon démb. déedéet. fàttewul démb de fàttewul démb de dëgg la. loo wax doyul. loo wax doyul. barke Sëriñ Bamba lépp moom la Mbaye si Ndiaye. lépp moom la waxal de. barke Sëriñ Bamba. Mbaye bi lan la nan la. bégal ko xelam daj ci mu defal ko anniversaire surprise ay dara Chérif jërëjëf donc ñi ngi remercier ñi teew ñëpp di wax ne Amina Poté suñu jigéen suñu xarit yónnee na fi teraanga yu bëree bëree bëree bëri moom borom këram Malick Naar bi nga xamante ne diggante dem ak waale altine la ak talaata bis doxul ci diggante donc dañuy ñaan ñëpp toog seen place. ñu jàpp suñu jàmbur civilisé rek présenté waale li nga xam ne mooy meneen yi di fàttali gars yi nag ay place ak ci nit yi mën nañu dugg toog gannaaw présentation bi dañuy indi li nga xamante ni moom du tudd ndeysaan sama wax yara wax naa war nga di wooye wooye kon bi ay ji Thank you. Meri waaw mu ni patt noppi mujj Bakar ndeysaan mu ngi noonu. Saliou macha allah yàlla gën kii mooy sama góor lépp moom la. di sama séeru doom. ndeysaan dëgg la. kii nag yàq ci dara. ñu ngi lay fay suñu la yor di ñam. xam nga nii. amiin. yaa ngi njaboot bi moom amiin waay amiin. soxna. suñu suuf. soxoon na. bu ñu naree wax. ndeysaan vidéo bi dina def trois jours. barke alxuraan karim dëgg la.

mais danga leen danga leen danga leen. mais chéri mais chéri waaw mais booy yeneen kër gu mag tey de taxaw leen taxaw leen di ñaanal seen papa ñii ay doomu waal lañ lan ngeen ñaanal seen papa. jël kuma yow ku ne xam na ne jàng nga alxuraan wàcce nga kaamil da bëgg nga ñaanal ko ubbil ko ay saar ba pare ñu doon di waxtaan. allahumma salli ala sayyidina moom ñu fàttali maa xam ne xaatim maa xam naas bi ak yàlla ko yàlla defal gudd fan ak wér gu mu bëgg lu muy yóbbu yàlla yàlla motul yéenam yëpp mënuñu ko may dara ba mu saf ko mënuñu ko may dara ba mu saf ko mënuñu ko jox dara ba mu saf ko ñaan rek lañ ko mën a defal ko yàlla ko yokk ay fanam bu dël ko waaw mais Fanta yow léegi nii nga mën a fekk Fanta yaa illa sabaru waaw wóor la ngay waaw. sama baay faal daa ah. koy ñaanal gudd fan ànd ak wér di ko ñaanal bàcc gën a wér yàlla bàyyi ko fi jabaram soxna bi soxna ay dara gën a yàgg ci wér loolu mooy waar yàlla gudd fan ay dara di daal di sama waay la jàmm ñal jaara busub wala mañ sa bi jaara